محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ma jóg la géeyal sëriñ Tuuba te sàkku ngërëm ci barke Cheikh Moustapha ci barke Cheikh Moustapha Mbàkke sëriñ Baara ma jóg la géeyal sëriñ Tuuba te sàkku ci barke Seex Mustafa Mbàkke Sëriñ Baara ci kattanug Yàlla ak njool Màkka ña ko lay tàmbalee ci mbirum Sidi Lamin Baara mooy turandoo xayru xalqulaahi sayyiduna salaale yi la si abda sëriñ baara mooy turandoo xayru xalxulaay sayiduna sala alayhi la si abda sëriñ mbaara kattan ko jool màkkaamati daram la yàlla fab yu ni bañ a fa tappam bur yàlla dem baaras di soppi atte ya moom Siidi Lamin Baara moo sañ a fa tampamub bur dem baaras di soppi atte ya moom Siidi Lamin Baara jaasi dogal dafa kun la yàlla daas ba mu ñëw jox ko yonen ba mu jox Siidi Lamin Baara yonen ba dellu fa baat jaaseem ja daas ba mu ñëw jox Seyxi Bamba mu jox Sidi Lamin Baara yonen ba dellu fa baat jaaseem ja daas ba mu ñëw jox Seyxi Bamba mu jox Sidi Lamin Baara kiwum na làmb ja ndax bàkka moo man caaras onze bi dex ne seetaan rajim mbokk yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel sunu euh, chaîne YouTube Tawfekh Production euh, tey ñu nekk file ci CICES e euh, ci nag waajtaayub bés bi nga xam te ñu ko jagleel Serigne Mouhamadou Al Amin Bara Mbacké mu nekk fukk ak juróomeel bi yoon di quinzième édition bi ñu koy amal file ci CICES e war ko waajal ci le 19 novembre 2022 di yemook bésub gaaw mu nekk bés bu am solo boo xam ne tey ji mooy sabab boobu waajtaay bi di avant première bi mu nekk bëccëg goo xam ne tey jii tey euh, si ngoon fii ci CICES gis nañ bu baax a baax euh, donc des délégations venues de partout ñëw euh, marqué vraiment seen présence ci waajtaay bi. fadat wayaayiluhum wadat fayaayiluhum wasam wayaayiluhum xam nan sëriñ baara wasas mayaayiluhum wasan jayaayiluhum ki di jox ndigalay Sidi Lamine Baara yooye malaayika ceelub lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ Baara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ Baara yooye malaayika ceelub lim juróom ñett lañ yu bakku taawaras woon na sëriñ baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi maa bëggal bëgg sëriñ baara boo bëggatee buur itam na fekk buur baara bu jullit la ci njabootu kër doomi soxna yi nga xamante ni eh, ñi leen jagleel bés bu am solo bi lii ndax eh, ku wax loolu sax wax it ñi nga xamante ni eh, ñoom lañ jagleel bés bi bokk na ci fukk juróom juróomeelu édition bi Serigne Maam Cheikh Anta Mbacké borom euh, gaawaan borom dërëm ak këram waaye ak rakkam di Serigne Afia Mbacke bokk na ci ki nga xam ne moom la ñu parrainé bàyyi di bés bi euh, gis nañ également daañ ci delloo njukkal Serigne Abbas Mbacke euh, ko wax dem ca Daarul Moxti ëttu maam Thierno Ibrahima Fati waaye it daañ ci rendre hommage Serigne Moustapha Massamba Mbacke moom moom it ni kenn ci njabootu Cheikhul Khadim Serigne Touba Khadim Rasoul waaye naka noonu daañ ci delloo njukkal Serigne Pape Malick Sy dem teewaan ndax lii di rek kër diine yi ñi nga xam ne wenn say lañ ci tollu l'islam bi loolu di wér firndeel rek ne sëñ Touba nam ko nekkoon ci boole ñoom it njaboot gi ci lañ ci nekk waaye également sëriñ El Hadji Omar Dia daañ ko ci delloo euh, njukkal waaye euh, rendre ko ci hommage waaye tamit sëriñ Moustapha euh, Absa Mbacké waaye tamit ki nga xam ne moo di Thierno Mamadou Alpha Sarr Ore Fondé ak ki nga xam ne moo di sëriñ Modou Mokhtar Mbacké Darou Marnane waaye également sëriñ Abdourahmane Mbacké daañ ko ci delloo njukkal bokk na ci tamit Cheikh Chérif Abdourahmane Fall Tilala waaye également dañ ci delloo njugal El Hadji Modou Mamoun Fall ñu gën koo xamee ci Pa Ndamo waaye tamit eh, kii di Goro Ngom mm, yore woon xel comme bâche naka noonu ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo di eh, ñi nekk ci kër doomi soxna yi muy bés bu am solo boo xam tey jii Serigne Bass jamono ji may àddu mooy wax di Serigne Bass Mbacké Khadim Awa Ba nekk l'initiateur eh, de cette grande journée culturelle dédiée donc à Serigne Mouhamadou Al Amin Bara Mbacké fils de Cheikhoul Khadim Serigne Touba Khadim Rasoul qui aura lieu le Biramaroon ak Bayaan ca alimul xaybu tabe sëriñ daara sëriñ ku la cosaan bay weddi weddi lii ma wax jàngal mu na wér bul yaanum surub aroot ak bayaan ak téere yi taxa xam caalimul xëy bu lañ sëriñ baara ca géeji xëy bu la naan ba di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal sëriñ baara ca géeji xëy bu la di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal sëriñ baara koo xam ni kii bu musaa tàngoor ba geesu wetam lum xol mu takk jërit moo di sëriñ baara dëjëm bu rëy ba fi daane nooru diina ya woon ko sot ba mu ñëw te mooy sëriñ koo xam ni yàlla la daa dàkkul lu mu wax mu far dajeeg dogalam boobee sëriñ baara koo xam ni kii bu bis bu taxawee muro muro yëpp far moo di sëriñ baara koo xam ni kii sawaraat tàngoor wu wa mu am bu nee na fay moo di sëriñ baara koo xam ni kii bu musaa war naaru góor di dawal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 koo xam ne kii naan jëyi jalili nas toba gi Seex Ibra Faal santub Sëriñ Baara koo xam ne kii naan jëyi jalili nas toppal ci Seex Ibra Faal santub Sëriñ Baara yónneen yaa xutbu yaa labdaadi ak ñi fi woon kenn musu fee ñëw ba yor mbootum Sëriñ Baara ku du rasoolu te doo Cheikh Bamba doo ko mujj nu manti toll yoroo ndombay sëriñ baara xar baaxi Cheikh Bamba ak mbootam rëy yamu xam ak ñax ji ya ñooy xeppuk sëriñ baara mboolam wilaayat Sëriñ Tuubaa ga asakaam la seex si seddoo day baaga Sëriñ Baara mboolam wilaayat Sëriñ Tuubaa lay asakaam la seex si seddoo day baaga Sëriñ Baara moo doon Seex Bamba moo gëm yàlla xam la ko te sopp njool Makka moom Sidi Lamin Baara moo doon njàmbaar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 du lekk fiit fo ñu sëriñ baara mooy dooni soxna amin toloo mu am ma ngërëm yàlla mu sawa may turandoo baara soxna amin daa gëmoon Cheikh Bamba fekk ligal ba daa bu jannatoo na sëriñ baara keroog ba Cheikh Bamba ne tey ajjana ku dem du ñàkk tey ca dem mooy lay sëñ baara maa doonam bu soo bëggoo nga dem mu ni toogal ma dem te nga wuuf Seex Fallu baara bamba yi ko foofa nag toog gi te marax la daal di wàccu liggéey wóor na baara kër bu yàlla naa sëriñ waaye du ñu yem ndax Serigne Bara ñu toll waaye Serigne Bassirou Khadim Awa Ba ñu toll. nanu may Serigne Bass 15e édition. expérience bi koy organisé Kora Bakar macha allah mi ngi fi. xam-xam bi mi ngi fi. experts yi ñu ngi fi. mbooloo mi ngi fi. daal bi nga xamante ni ñoo ko soxla ñoo ko def kenn desul. bi ma gëstoo lépp. gis nga yéen képp ku mel ni Diouf Mor Mbaye ànd ak Serigne Modou Seck Mbaye Ndonga Ndiaye ànd ak Adama Ndiaye.

yéen ñi nga xam ne yéen yenn ci ñi nga xam ne jël nañ ay parole euh, ci jotaay bi mbir dayoo bi nga xam ne bés bi am na ko euh, gis nañ également délégation yu jógee ci Touba Mbacké ak yenn gox goxaat yu wute euh, soxna yi ñi ngi ci biir tente bi gis nañ bu baax a baax ñi nga xam rek ñoom ñoo di góor yàlla yi également ñi ngi ci biir lépp rek ngir waajal bés bi nga xamante ni bëgg nañ képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an wa ashhadu anna muhammad rasulullah ko muy sa ko bés boo xamante ni at yi amul li ko waral nag dana am particularité mooy dafa amoon cette pandémie de covid 19 nag bi nga xamante qui est par là moo taxoon bés bi amul euh, mu nekk loo xam ne taalibe yi namm nañ ko tax tey jilee ñu nar ko waajal Serigne Bass nag mi ngi yëkkati kàddu di sant bu baax ñi ko wuy si ak ñi nga xam te ñëw nañ ci bés bi ñëw wane seen taxawaay ci bés bi ñëw wane itam seen euh, lii di itte ci bés bi waaye Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba di rakkam jiite ay association islamique pour servir le soufisme également mi ngi ci bés bi waaye également ñi nga xamante ñoom ñoo di euh, communicateurs yi ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñëw nañ ngir lépp rek àdduna wër nga këpp ci euh, gox yi fasantikoo mën a teewee bés bi mën na tamit xam ne waaj ko jot na ndax ku nekk xam ne ni il y a la présence également effective euh, donc des professionnels de média de donc de l'information et de la communication jëm ci wàllum presse bi lépp pour relayer l'information selon laquelle bés bi ñëpp dañ ko war a mën a waajal ngir bañ ko wuute ndax bésub diine la bés la boo xamante ni dana am ille ju am solo dana am dayoo ñu war koo amal si sees ni ma ko waxee sànq nga xamante ni lu taalibe na moon la ndax woppi mbas bi fi jaar ci atum 2019 tax daanaka file ci barab bi amuluñ ko fi waaye ñuy ñaan yàlla euh, suñu borom def ci xéwal ba tamit taalibe yëpp fépp fu ñu nekk rek mën na ñëw waajal bés bi nga xam ne sëriñ euh, euh, bi ngir sant ak gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk yi délégation yi nga xamante ni mënu leen a lim ku lim jum ñëw nañ ngir avant premier bi dara bañ leen ci wute kon mbokk yi lii mooy nara a incha allah waajtaay bi di ubbite fi jëm ci journée culturelle également bi nga xamante ni kon à travers le monde bëgg nañu vulga vulgariser également euh, l'œuvre et la vie euh, euh, la présence également, qui verra la présence également de plusieurs délégations, de plusieurs familles religieuses, toutes toutes confondues Sénégal kon mbokk yi lii mooy lu am solo li nga xamante moom la leen Tawfekh Production jëlal fii ngir baaxee ko mbokk internet yi nga xamante ni rappeler wéy leen di bës cloche bi di jot notification yi di abonné pour également gunge leen euh, waaye tamit ñëpp ñu am ay événement ñu ngi nii kon di leen ci gunge kon l'événement bi mu soog a jeex noonu ngeen gis bu baax a baax euh, taalibe yi ñu ngi waajal ngir delluwaat bu baax a baax ngir sàkku ñaan tamit ngir am mbégte ci Serigne Bass kàddu yi nga xam ni kër na ko fii ci mbooloo mi kon lii moo leen Tawfekh Production jël si woon fii ci CCS ci avant premier bi ngir nag gunge leen di leen jox dox daje le 19 novembre 2022 fii ci CCS mbokk yi suñu numéro dina affiché wu képp ko am événement contacter leen Tawfekh Production daan leen ci gunge jaa ngeen jëf. Basiru